leen écarté jéem ci def ay ay ay jéego yoo xam ne du dem fenn ndax kii li mu wax. piquet yi ñu déposé yëpp le 20 et le 22. on va comprendre beaucoup de choses nañu def 60 ko mën a boo xamante ni des fois day jar ñu fay taxaw parce que man j'ai l'impression que débat bi dañu jël par exemple dañu jël la majorité exclure leen. dañu jël ñi nga xamante ni ñoo yar la dernier mot exclure leen on est d'accord que par force par la force sëgg bëre euh, élection dina am on oh, nous tous on est d'accord moi j'en suis j'en suis convaincu ay randal élection ay jàppal bàyyil je suis pas d'accord te du fi amee par force par la force ci kàttanu yàlla ak mbaaxam le 24 make candidat am dinañ sëgg bëre l'ultime combat dafay am par force y aura pas de rapport y aura rien mais bu élection bu élection amee Aliou c'est qui qui a le dernier mot c'est le peuple. Ah, théoriquement. donc pa non qu'on qu'on parle pas. non théoriquement là alors. non qu'on parle pas de vol d'élection. parce que ce qui est sûr et certain que. les Sénégalais à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent ils sont prêts à sanctionner Macky Sall ci douze ans yi naqar yi ñu teg yépp ak tooxal yi ñu tooxal moo tax ma ne la moo tax ma ne la moo tax gis nga Benno Bokk Yaakaar man période bu ñuy tànn candidat su ma bokkoon Benno Bokk Yaakaar j'allais jamais bu ma Macky Sall taboon ma ne ko baax na Macky gis nga gis nga tey ku nekk candidat Macky Sall jàppal ni les gens ne voteront pas contre toi sénégalais yi mën nañ bañ a bañ am Amadou Ba de ah. mais sénégalais yi moi j'ai pas parlé dañuy fayu ci 12 ans yi leen Macky Sall jàpp je parle juste de la conservation yow bàyyi ma opposition non mais yow kii mënay naa la sànq ba ndax yaa ngi dégg li muy wax maa yow yow Amadou Ba nga gis non non c'est-à-dire. non mais xaaral man xaaral waaw xaaral Amadou Ba kii dañuy déglu tamit dañ lay li paase wax déglu dafa neex de li mu wax yow da ngay wax la personne de Amadou Ba est-ce que tu es sûr que Amadou Ba kese mooy candidat gis nga yii ñuy tàmmal man man yii bañ nag. yii laay yii c'est des c'est des schémas xam ne kan la yàpp bay ñëw nañu Amadou Ba mooy candidat Benno Bokk Yaakaar dama tuuti nañu dañu nekkatu ko politique gis nga xam nga lan on est on est mais xaar leen quoi ah, comme l'impression que ñun ah. dañu sérieusement mais mais yéen yéen tamit lépp loo xamante ni maanaam daal Macky Sall mooy le roi de de de de de. mais parce que ñii le roi de de de de je m'en foutisme quoi. mais quand même il faut arrêter à. mais oui moom Modou Lo moo euh, mën Boy Niang. mais moyen de parce que Boy Niang dafa am ay manquements. mais mais moyen de. kilifa s'il te plaît Boy Niang Boy Niang dafa am ay manquements. non non c'est-à-dire man ah man non xam nga <laughs> xam nga lan laay bañ Aliou Aliou. je suis désolé. il faut qu'on avance et je ne serai pas d'accord. li ñu may gis nga dañ ne dañ war a diminuer le pouvoir du du président de la république mais c'est aux populations de diminuer le pouvoir du président d'un président de la république ah ce peuple là ce peuple est prêt pour dire à Macky sàll que merci kilifa ça suffit. ma ne la defal ndànk stop Amadou Ba mooy candidat Macky Sall moom la tànn par force par la force. le 24 février dinañ sëgg bëre. te ku ñu mën a jàkkaarlool. c'est les Sénégalais c'est-à-dire Macky euh, il est en face xam nga Macky Sall moom ak kan la. du moom ak du moom ak opposant bi jàkkaarloog ñoom de. mais moom ak sénégalais yi la. sénégalais yi ñooy opposant Macky Sall. te dinañ ko wan loo xamante ni. merci kilifa jërëjëf sénégalais gis Sénégalais yooyu euh, ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo doon wax comme wax bi ngay wax nii 16 heures bu ñu tey Ousmane Sonko 16 heures 30 lépp leer Sénégalais. doo déglu foofu tamit foofu tamit xam nga lu tax nanguwuma <laughs> les Sénégalais. les sénégalais. kilifa boo ko bëggee def le peuple le laa la wax de man gis nga su may wax. kilifa su ma yoon ci ay leader rek ay je sais pas quoi parce que ñoom ñëpp xam naa leen. kilifa li wax la. kii wax ko Pa Assane ñoom ñëpp li leen yitteel mooy. kilifa chacun veut être président de la république. non mais tu peux pas. non sa non xam nga non du loolu de non du loolu j'ai me fait très mal. su on dit que le peuple a trahi Sonko alors que c'est pas vrai ce peuple est sorti mais ce peuple était en phase de koo xamante ni daf ko dénk armeem dénk ko policeam dénk ko gendarmerie am muy utiliser des armes non conventionnelles yoo xamante ni lu ñu yor lu gën a graaw xeer la ñu teye ay fetal ak ay lu nekk di leen ko sox doomu jàmbur yi di dee cest à gis nga affaire bi loolu la ah Modou Lo kilifa ñaa lay bëreel ñoo tolloo doole on te retire la parole merci ah, oh naanal ci baaw naan. baaw naan parce que sinon. faut pas ñuy encourager Macky Sall ci li mu nekkee. non encourager ma de moi je fais des constats. oui mais cooki xel la. xel la lii ma gis ni du xel. li nga gis nii nii togaay bi nii nii du xel. non man waxuma ñuy mais yow fi nga toll ci xeex. ci entraînement. non da ngay daanu. si si si. façon bu yëngalaat kilifa fii waaye. mais mais xam nga. mais mais mais Aliou loolu méttiwul la ci le fait que. daanu daanu nii rek te teguñu ko ci dara. cest à moom la neex quoi comme li la Pape Moussa di wax. yu bàyyi wax des élections présidentielles non xam nga bu ñu taxaw boo taxaw nga ne sénégalais yi sénégalais yi gis nga Sénégal. c'est du nord au sud c'est de Ourossogui à euh, euh, euh Koumpentoum ah, c'est de c'est de xawma euh, euh, fan Kédougou c'est de Kédougou à Sédhiou c'est de Sédhiou à xawma fu la neex waxal ci réew mi wàcc Diourbel dem machin Sénégal dafa yaatu il y aura pas millions de personnes qui vont voter duñ voter kii kilifa kilifa da jàpp li ma wax de te dama bëgg il faut ñu toogaat fi de. li ci finalement. li ciy juum li ciy juum finalement. xoolal xoolal dama lay xoolal non non Aliou su ma ko su xamul woon su ma wóoluwul woon intégrité am <laughs> su ma xamul woon. xoolal daf ma wóor naa ne ma alo est-ce que doo ballon de sonde est-ce mag Macky Macky waxu ni lii laa bëgg a def nii laa bëgg yëf yi demee. non xalaat la rek da ko koy waxal. non non muy xool mais mais quelle sera la réaction des bi ma nee bi ma waxee nii. bi ma nee leen nii euh, euh, lii nii Yewwi Askan bi c'est pas bien. gaañ bi dafa war a ñëw moom continuer ci yoonam ku bëgg nga ñëw seey ci biir doxal jàppale ci projet boobu ñu teg parce que loolu mooy gestion transparente d'un pays li si des lu ñuy organiser la réew nañ koy setal bi ma waxee loolu non non non non mais oui oui est-ce que du ballon de sonde sax est-ce que yónni wuñ ko sax que ni affaire bi dafay capoter du dem parce que dafa am koo xam ne moom il faut mu yegg fi mu bëgg te dernière chance la am fedd rek la mën a langaamu pour le moment mooy ci biir Yewwi Askan Wi def na ko ba fi mu waroon a yem parce que moom leeroon na ci boppam waaye Ousmane Sonko leerul woon ci boppam leerul woon ah. Hmm. ah bu leeroon dina def dina dina dina dina métti dina ko métti lu à ce point là mais Barthélémy leeroon na ci boppam. Pape Ousmane. xalifa leeroon na ci boppam. Madep. Hmm. wala boobu. dama ne. Aliou merci. jërëjëf. na la yàlla <laughs> Amadou Ba. premier ministre. waay euh, mu ngi woon ca euh, clôture. bi ñu doon def si euh, cinquantième assise de l'union de la presse francophone. waaw mu yëkkati fa ay kàddu. Hmm. ma bàyyi la nga traduire ko ci wolof. waaw un journaliste vertueux est d'abord courage courageux entre guillemets. loolu la Amadou Ba mi nga xamante ni mooy candidat Benno nekk Euh, premier ministre jamono ji yëkki ay kàddu mel ni xëy na kuy tontu sax euh, ci lii Babacar Fall euh, di journaliste ca RFM di dundu jamono ji ndax ginnaaw bi mu defee chronique daanaka saaga ak menace ak lu ne la ñu ko yàq ci téléphone am bi ci ay numéro xëy na yu mu xamut loolu ginnaaw kàddu yi nga xam te ne président Macky Sall moo ko njëkkee ci kuréel bii Euh, ngay wax ni ñoo nekkoon ca euh, fële ca jam ñaajo ñetti fan te Madiambal Diagne sax moo jiite euh, kuréel gi ni mel président Macky Sall yëkkati fa ay kàddu doon wax ci presse na mu ko gisee ci réew mi rawatina presse bu Sénégal ci li mu gën a taxaw nag moo waral xëy na chronique gu Babacar Fall mooy li nga xamante ne jëm na ci revue de presse ni ñu koy defee ci réew mi ndax jàpp na ni mbiru théâtre la cee rax jël ay titre di ko théâtral ba Sénégal yi mujj koo bëgg mu doon ci ñi nga xam te ñooy former ndaw yi CESTI ñu jéem a xëy na intégré genre bu ni mel loolu nag indi Babacar Fall def ci chronique fàttali ko moom jiitum réew bi na ko mënoon naa gën a rafet ndax mënoo jàkkaarlook say naataango ci àddina bi di wax yiw ni mel euh, jëmale ko ci euh, presse bu Sénégal tàmbali nag euh, fàttali ko ak i laaj yoo xamante ni jébbal na ko xëy na lu ni mel nag am na ñu mu neexul ba ñu yëkkati kàddu yu mel tey nag bi ñu koy tëj Amadou Ba wax lii. ne ñooñu di ay taskatu xibaar yu ñu jàpp ni xëy na dañ leen di buntu xalal di la waxal wax yu ni mel bëgg leen a noppiloo la ñu war a def mooy fexe ba ànd ak courage ndax jàpp na ni loolu moo war a doon euh, seen taxawaay waaye jàpp ni it euh, jafe-jafe presse bi fexe ba duñu leen doolelee ci wàllu koom ndax lu ci ëpp loolu la moo tax moom mu jàpp ni économie en tout cas presse d'une manière ci loolu la ñu war a gën a liggéey euh, su ko defee ñu gën a <coughs> mënal seen bopp xëy na. Euh, euh, moo gën yeneen yu ñu cay yëkkati di ko ca wax ah ci <laughs> ci li nga xamante ni moom waaw <laughs>